sëriñ bi euh, waaw déjà ci initiative yi wala boog en tout cas euh, long terme bi c'est-à-dire que prospective bi bi ñu war a am ci yoon bi euh, jàpp naa ne nit ñi duñ ko bàyyi xel mais sëriñ Mountakha mi ngi ci bay waar wu am solo parce que c'est-à-dire waaw tendon tendon d'Achille bi na bi xaw a nekk ci ci société bu nekk rek lay doon sax léeg-léeg ñàkk jàng lay doon Mhm. donc euh, université bu bees bi euh, mu taxawal ak ni mu ko xalaatee rek euh, dina dina régler lu bari ci côté boobu d'autant plus que bari na ay initiative yoo xam ne aussi murit yi ñi ngi koy taxawal amaana nit ñi duñ ko bàyyi xel mais yu am solo maa ngi ciy profité sax di nuyoo waa Murit Professionals. Mhm. di ñu am solo ñu nangu xalaat ci yoon wi. d'ailleurs seen slogan en tout cas provisoire mooy àddee xam-xam. addiyey xam-xam addiyey xam-xam pourquoi parce que li ñuy def souvent mooy ay panel wala yu mel noonu nga xam ne côté xam-xam xalaat sur le devenir de la ville sainte et de la communauté mm. d' am na panel yu ñu organisé woon récemment rek ci kër Sëñ tubaab bi nekk Daaru naan mm. kon initiative yooyu mi ngi am léeg-léeg nag amaan na peut-être le problème mooy léeg-léeg comme c' est c' normal aussi en peu léeg-léeg le train qui qui à l'heure duñ euh, ko bàyyi xel lool malheureusement malheureusement couverture médiatique bi day xaw a manqué c'est dommage c'est mais bon j'espère que ça va changer progressivement mais euh, ci beneen côté bi li nga wax ci wàllu njàngu Sénégal parce que noonu laa koy jàppee mooy euh, boo xoolee même France bi école de la République tàmbalee mm. am na ñoo xam ne dañ doon jiiñ Jules Ferry dafa bëgg jàppale industrie de nu mu tuddati de l'impression mooy livres yi ñu bees yi ñu doon créer créer ñoo xam ne dinañ ko mën a liir donc ça veut dire que école bi moom dafa dëppoowul ak sax suñuy attente ak suñuy besoin pour man euh, c'est-à-dire éducation ça doit être commande publique la su ma ne commande publique mooy da nga war a xalaat man dans vingt ans sama société lu may xaar pour mu doon ko ak yan corps métier ak yan valeur ñoo war a nekk ci société boobu ma jaarale ko via l'éducation par la transformation non pas rek par euh, accumulation ay connaissances livres rek jàngal nit ñi ñuy mokkal di dem boo xoolee euh, loolooy suñu cat nga gis ñu dem ba seetlu ne nag école de la république am na problème mm-hmm. mooy modèle bi ñu doon xaar anti modèle sax léeg-léeg la ñuy produire la mm-hmm. parce que soo xoolee daanaka lu ci bëree bari te pourtant euh, réew mi bëri na intellectuel mm-hmm. ñu bëri jàng nañ waaye est-ce que lañ doon xaar ci ñoom def nañ ko par contre nga gis aussi ñenn ñi jànge daara ju génn ci daara dem entreprendre réussir bu baax non seulement ñu réussir mais ñu ñëw employé waat ñii doon jàng fii doon leen xeeb ñu xeebal loon leen ci leen ci lañ nekk mm-hmm. parce que man li ma jàpp mooy Euh, dafa léeg-léeg ni ñuy jàngalee école dafay restreindre nit ki dafay limiter aussi potentiel potentialité doomu adama mm-hmm. ci nan mooy euh, yaakaar naa suma juumul ku tudd Howard Gardner la moo développé euh, la théorie des intelligences multiples dafa wax ne intelligence yi du intelligence linguistique rek mm. c'est-à-dire que intelligence yi dafa bari mm. am na intelligence rythmique léeg-léeg da ngay dégg sax ñu naan la CM2 mooy classe artiste yi <laughs> pourtant en fait duñ ko bàyyi xel mais parce que tout simplement dañu expulser ci suñu système éducatif benn classe boo xam ne. ñoom seen potentialité école exploité wu ko. classe géwél yi loolu la ñuy wax. merci classe géwél yi te pourtant parce que pourtant pourtant après yow seetlul bu baax ñooñu ñu expulsé ci école boo demee yow après continuer continuer bac master doctorat en marketing. da ngay dem fekk euh, benn géwal mu jàngalaat la marketing ni ñu koy defee ak communication. Mm-hmm. donc ça veut dire que du seen problème mu ñàkk seen intelligence mais seen type d' intelligence la école mettre en valeur. de la même manière euh, nga ne bokk naa ci réew moo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans. Mm-hmm. politique di laar de bien gérer la cité. Mm-hmm. cité bi seen pas-pas ak seen gëm-gëm nekk jàng alxuraan. ngir inculquer ay valeurs seeni doom yow nga ne boobu dama koy bàyyi rek ci informel y a problème. Mhm. léegi su yow non seulement y a problème parce que déjà euh, da ngay bàyyi une certaine clandestinité te clandestinité fu mu am rek problème yu bari ñëw. Mhm. mooy problème nañ ko ñemee wax mooy mendicité xale yi. Mhm. surtout parce que day metti lool nga wa nga génn jël autoroute bi fekk xale yi ci kaw autoroute bi. bari fa di la di la yalwaan. alors que soo organisé woon njàngaleem alxuraan jox ci moyens yi ci doy jël ay professeur ni nga koy jëlee ci école bi parce que su dee résultat rek école bi ëppul résultat jàngum alxuraan bi même ci mm. matériellement maanaam même ci économiquement. Mm-hmm. boo ko bëggee xam xoolal ñi ñi nga xam ne ñoo fi réussir nekk ay chef d'entreprise ñu bari. amaana ñoo xam ne sax motu toog ci banc classe. Mhm. donc da ngay xam ne yow say doom lii la ñu soxla. Mhm. mooy njàngum alxuraan lu am solo la ci réew ci ñu am seen conviction ci seen diine. Mhm. ngir inculquer ay valeur xale bi. kon encadré ko def ci moyen yi ngay def ci moyen école bi. ngir mu mën a créer benn citoyen modèle. parce que souvent du làkk bi rek te problème boobu day am mooy làkku làkk bi ñuy utiliser ci école bi. làkkum tubaab ba ba ba léegi xa làkkum tubaab daanaka à part réewi Afrique yi France rek a ko dese. Mhm. te biir France sax boo làkkee anglais ci lañ lay gën a wekk boo làkkee tubaab. Mhm. seen euh, français. donc léegi nag ñun malheureusement li ñu am mooy ay intellectuels yu ñu basé wu rek ci déggu làkk. Mhm. kese nga xam ne maanaam mënut mënta maîtriser dara maanaam mën naa làkk tubaab daal mais benn domaine bu mu nekk expert du ci am léeg-léeg. loolu la ñuy former ci suñu école yi. Mm-hmm. alors que ki nekk ci daara ji au moins danañ ko jox ay valeur jàngal ko diineem jàngal ko ni mu war a doxalee ci biir société bi loolu cest à dañ naan la école moom benn dix pour cent vingt pour cent ba trente pour cent nga fay jëlee waaye li ci des ci l'école de la vie nga koy amee. Mm-hmm. donc dañu war a tollale loolu. jéem a xam ne réew mi ñu nekk dafa am spécificité wu du France ba nga xam ne ñoom dañoo am na ñoo xam ne sax dañoo taal seen église wala leneen. Mhm. fii réewum di du du ma ne laïcité boo xam ne la du négation de la religion mais. Mhm. équilibre lay doon. Mhm. donc li nga xam ne nit ñi bëgg nañ ko muy diine nañ ci góorgóorlu investir ci nit ñi investir ci école bi encadré ko. parce que li ñu yàkkamte rek mooy gis ñu ne pédophilie benn xale benn. parce que parce que tout simplement encadré woo ko. Mhm. dafa encadré woo ko alors que soo ci encadré woon jox ci moyens yi ci war yi ngay joxe ci école bi. Mhm. su boobaa dina am résultat bu kawe njort te su boobaa lim lay dimbali mooy après day am benn foo xam ne fu ñuy retrouver woo mooy li Serigne taxaa di jéem ci université Cheikh Ahmadou Khadim bi rek. Mhm. mooy fenn fu ñuy retrouver woo foo xam ne. ça va leur ki nga xam ne jàng na sopp na cursusu arabe wala alxuraan wala nangam fi ñu war a université nga xam ne jàng métier fay daje. Mhm. ngeen mën faa daje jàng métier. te te en général ñaar ñi suñ fa dajee da ngay seetlu ne ki jóge ci système bee moo koy gën moo koy jiitu. Mhm. waaw loolu moom donc dañu war a xool naka la ñuy def ba cumuler ba boole ci école française bu ñu boole ci li nga xam ne moo di daara ji. bien sûr ñu jiital ko ci sax. bien sûr et puis aussi euh, adopté suñu langue yi ñu yor fii. ci la ñu a développé. développement ci langue jàmbur yombul. baax voilà d'ailleurs mooy thème mu afrovirus. afrovirus boobu nag waaw voilà c'est ça.